min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man wala allahuma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma allimna ma yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilma allahuma aftax alayna barakataka wanshur alayna rahmatak bi quwatika ya dal jalali wal ikram allahuma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxasna ida chita sahla wajcalhu allahuma sahlan muyassara ya rabbal alamin mbokk ñi leen nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal tey ñu fas yéene dellu ci axaadiis yonente bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ni moom lañu amoon yéene fàttalente ko ko ci koor gi mu nekkoon xadiis yi nga xam ne dañ koy tibbee ci axaadiis yi nga xam ne moom la imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ñu àggoon ci juróomeelu ci juróomeelu xadiis bi mim na an an Aisha radiyallahu taala anha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man axdata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd rawahu albuxaari wa muslim wa fi riwaayatin li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd xadis bi dafa am ñaari ruwaaya ñaari yëpp nag suñu yaay Aïcha radiallahu anha moo ko nettali mu ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na man axdafa fi amrina haada ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xam ni sos na ci suñu mbir mi loo xam ni bokk ci kon loolu dañ koy delloo loolu lu luñ dul nangu lay doon lu ñuy lu ñuy wàcc lay doon lu ñuy luñ dul nangu lay doon riwaaye boobu Buxaari moo ko nettali ak Muslim ñoo ci ànd am na benn riwaaya boo xam ne muslim moo ko nettali boo xam ne daf ni man amila amalan képp koo xam ne jëf na ab jëf boo xam ni laysa alayhi amruna dëppoowut ak suñu mbir wala boo suñu mbir amu ci dara fa huwa radd lu ñu delloo la lu ñu dul nangu lay doon xadis bi dafa bokk ci ahadis yi nga xam ni dañoo nekk cosaan ci cosaani diine gi ba noppi doon ab balance boo xam ne ci lañuy peesee lépp loo xam ni moo ñëw ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax masalab bidaa ak ni ko boroom xam-xam yi daan euh, daan daan waxee ndax bidaa xasana am na ak bidaa sayyi'a bidaa bu rafet ak bidaa bu ñaaw loolu lépp daanaka ci xadis bii lay dell daanaka xadis bi moo cosaan ci loolu cosaan la ci ci masalam biddaa ci masalam biddaa ak naka lañuy xàmmee biddaa borom xam-xam yi tamit ñoom wax nañ ci biddaa ndax am ndax biddaa bu rafet mën naa am ak biddaa bu ñaaw loolu nag ab débat boo xam ne yàgg naa am ci ci umma bi ca borom xam-xam njëkk ya ba ci ah, jamono imaam Shafii wala sax lu ko jiitu ba jamono ji ba tey boroom xam-xam yi dañ ciy wax <coughs> euh, imaam bi taalif na ab téere bu tudd al-i'tisaam moo xam ne daanaka ci mbiru bidaa rek lay wax bu ñu xoolee daanaka euh, téere bi cosaan ci mbiru sharia sharia leeral ak mbiru sharia waaye dafa doon nim lim ci détaillé dafa doon ay mbir yoo xam ni Euh, day détaillé mbiru bidaa tas ko bu baax indi ci waxi borom xam-xam yi ak wute ci borom xam-xam yi am ak yooyu yëpp xadis bi nag man axdasa fi amrina képp koo xam ne sos na sos mooy nga fekk loo xam ne amutoon nga fekk loo xam ne amutoon amal ko loolu la wax sos fekk loo xam ne amutoon nga amal ko fii amrina ci suñu mbir mii te mooy lislaam te mooy mbiru lislaam fii fii amrina haada ci suñu mbir mii mooy maanaam mbiru lislaam mbir mi nga xam ne moom la yàlla waxe yonent bi ngir mu jàlle ko te mooy diina ji rek te mooy diina ji képp koo xam ne sos na maa lay sa minhu loo xam ne bokku ci loo xam ni bokk ci fii ni koy déggee mooy loo xam ne amu ci cosaan loo xam ne bokk ci mooy loo xam ne amu ci cosaan wala loo xam ni amu ci tettal wala loo xam ni amul cos amul benn benn cëslaay ci diine fa huwa kon loolu lu ñu delloo la ay marduud lu ñu lu ñu dàq la muslim nag riwaay bi mu indi am na riwaay beneen riwaay bu mu indi boo xam ne daf ni man amila amalan képp koo xam ne jëf na ab jëf maanaam euh, ñaari riwaay li ñu mooy lee dafa sos ab jëf sos ab jëf fii nag riwaay bi def ni képp koo xam ne jëf na ab jëf ak jëf bu munti doon boo xam ne laysa alayhi amruna bokkut ak dëppoowut ak suñu mbir wala suñu mbir mii amu ci dara te mooy diine ji foofu warat kon loolu la ñu delloo la xalis bi am na yenn borom xam-xam yoo xam ne nee nañ bidaa bu dañ koy définir mën nañ ko définir réel xadis bi rek man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd daanaka loolu mooy loolu mooy bidaa mooy loo xam ne dañ koo sos bidaa mooy loo xam ne dañ koo sos ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam te amul benn ci salaat ci diine yonente bi alayhi salaam defu ko digleewu ko alquran digleewu ko saxaaba yi defuñu ko digleewuñu ko ba noppi amul benn cëslaay ci diine ji ba noppi amul benn cëslaay ci ci diine ji xadis bi daanaka loolu lay loolu lay leer na léegi ndax lépp loo xam ne dañ koo sos ci ginnaaw yonent bi wala bokk amul fenn fu mu wéree ni yonent bi alayhi salaam def na ko ndax lépp lu mel noonu rek dañ koy jàppee bidaa wala boog am na ay mbir yoo xam ni donte ginnaaw yonent bi alayhi salaam nañ ko sos waaye duñ ko jàppee ay bidaa ndaxte am na cëslaa ci diine loolu xadis bi tamit da koy leeral ndaxte yonent bi alayhi salaam ci ñaari riwaay yëpp daf ni ma laysa minhu wala laysa alayhi amruna loo xam ne bokk ci suñu mbir mi la bokk loo xam ne amul cëslaa suñu biir mi loolu mooy lépp loo xam ne kon am na ay cosaan ci am na ay cosaan ci waaye banqaas loolu doy su ko jàppee bidaa yonent bi aleyhi salaatu salaam ci ab xadiis nee na man yaish minkum baadi fa sa yara ixtilaafan kathira fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrachidin almahdiyin almahdiyin min baadi addu alayha binnawajiz wa l umuur fa kulla muxdasatin bidaa fa inna kulla na képp koo xam dund nga sama ginnaaw di nga gis ay mbir di nga gis ay wute yu bari ci nit ñi képp koo xam ne dund nga ci sama ginnaaw di nga gis ay mbir yu bari yoo xam ni ay wute lay doon ci diggante nit ñi kon nag na ngeen jàpp ci sama sunna na ngeen jàpp ci sama sunna si na yenn borom xam-xam yoo xam dañ naan sunna mooy safaanu bidaa sunna ak bidaa ay contraire bu ñu nee sunna ñu naan sunna ni bidaa sunna mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko yoonal nit ñi di ko def bidaa nag mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaam mosu ko digle te mosu koo yoonal te amul benn benn cosaan ci ci ci sunnaam wa sunnatil xulafaa ir rachidin ak sunnas al xulafaa ur rachidun fii yonente bi alayhi salaam dafa askanalee xulafaa yi sunna daf leen a askanalee sunna daf leen ay mbir yoo xam ni ñoom dinañ ko def yoonal ko ngir nit ñi kon lii da ci tegtal la rek ci ni saxaaba yi wala boog xulafaa ur rachidun yi ci boppam ñoom mënuñoo sos ab bidaa te loolu dinañ ci ñëw ndaxte xulafaa yi ku ci nekk daanaka am na euh, loo xam ni def nga ko loo xam ni euh, yonent bi alayhi salaam bàyyi ko fi woon xëy na ba mu des Aboubacar Aboubacar loolu da ko ragaloon lool waaye yow fii yonent bi alayhi salaam dafay ne askanalee sunna wa sunnatil xulafaa ir rachidin al mahdiyyin seen sunna nga topp nga topp seen sunna min baadi addu alayha bin nawaajif na ngeen ko jàpp màtt ci bu dëgër ak seeni i bëñ. mu ne wa iyyaakum wa muhdathaatil umuur maa ngi leen di wattandikuloo yuñ sos yi mbir yuñ sos yi mbir yuñ sos ndaxte fa kulla muhdathatin biddaa lépp loo xam dañ koo sos rek biddaa la lépp loo xam ne dañ koo sos biddaa la wa kulla bidaatin dalaala te lépp loo xam ne dañ koo sos te bépp biddaa réer la wa kulla dalaalatin fi naar te bépp réer rek safara la jëme bépp réer safara la jëme fii la yenn boroom xam-xam yi di euh, wuutee ci mbiru ndax bidaa bu rafet dina am wala bidaa bu bidaa bu rafet mën naa am wala bidaa bu euh, bu ñaaw bidaa bu rafet ak bidaa bu ñaaw ndax bidaa bu rafet mën naa am am na yenn boroom xam-xam dañ ni bidaa bu rafet mënta am maanaam bidaa ak rafet mënuñoo ànd bidaa saa boo ko déggee day ñaaw te liñ koy fi ñu koy tëttalikoo mooy ci xadis bi wa iyaakum wa muhdathaati al umuur fa kulla fa kulla muhdathatin bidaa bi daf ni maa ngi leen di moo tandikuloo mbir yi nga xam ne dañ koo sos ndax lépp lu ñuy sos rek bidaa la lépp lu ñuy sos kulla lépp loo xam ne dañ koo sos rek bidaa la wa kulla bidaatin dalaala te lépp loo xam ne bidaa la réer la wa kulla dalaalatin fi naar moo tax yenn borom xam-xam yi buñ nee maanaam bidaa bu rafet mënta am ñoom lañuy euh, nañuy déggee bidaa mooy bidaa mooy lépp loo xam ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko fi te tamit amul benn cëslaay ci lislaam amul benn cëslaay amul benn cosaan ci lislaam amul benn xadis bu koy tettale wala boog amul benn jëf ci lislaam bu koy tëkkale wala amul ci dara lu banqaasoo ci loo xam ne lislaam moo ko moo ko yoonal moo ko yoonal kon bu fekkee euh, ñoom noonu la ñuy déggee biddaa ba noppi xadis bii nii lépp loo xam ne dañ ko sos rek bidaa kon ñoom dañ naan bidaa mënut rafet ci cosaan bidaa ci boppam mënut a rafet bidaa ci boppam mënut a rafet te lépp loo xam ni dañ ko sos la waaye yeneen borom xam-xam dañ naan enkay biddaa bu rafet mën naa am biddaa bu rafet mën naa am waaye ñooñu nag li ñuy déggee foofu bu ñu nee biddaa bu rafet ñoom li ñuy déggee biddaa du comme ñi ko ñi ñiy dàq biddaa bu rafet ni ñu koy déggee ndaxte ñoom dañ naan lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaam bàyyi ko fi woon waaye nag am na cosaan ci diine ji loolu luñ sos la loo xam ne yonent bi alayhi salaam bàyyi ko fi woon saxaaba yi bàyyi ko fi bàyyi ñu ko fi woon waaye nag am na ay cëslaa ci diina ji am na ay delluwaay am na ci ay mbir yoo xam ni ci lay bànqaasoo loolu euh, loolu ñoom dañ naan donte biddaa la bi maanaa ci ginnaaw yonent bi alayhi salaam euh, la ko nit ñi tàmbalee def waaye nag am na cosaan ci diina ji am na cosaan ci alxuraan bu ñu nee am na cosaan ci diina ji mooy loo xam ni lislaam yoonoon na ko yonente bi alayhi salaam dégle na ko waaye nag nit ñi dañoo ñëw ci ginnaaw bi di ko def ci anam gu ci misaal suñu borom subhaanahu wa taala day day digle sikar wala boog zikr wala di ko tudd di ko fàttaliku yonente bi loolu dafa bokk ci cosaani diine loolu kenn mënu ko dàq ci diine lislaam zikr kenn mënu ko dàq ci diine lislaam ci lislaam la bokk waaye nag ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam nit ñi kun am na ay kuréel yoo xam ni nañu tuddee yàlla wala boog nañu ñëwee di dajaloo ci jàkk ji di tudd yàlla dafa wute te ab saxaaba musu koo def yonent bi alayhi salaam ko def saxaaba mus benn saxaaba musu koo def waaye ci noonu dañ ko dañ naan lii biddaa la waaye ndax am na cosaan ci diine ji waaw am na cosaan ci diine ji ndaxte benn borom subhaanahu wa taala moo digle ci alxuraan ñu koy tudd suñ boroom tamit moo ni fii buyuutin adina allahu an turfaa wa yudkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillahi wa iqaami salaati wa itaai zaka mu ni suñ boroom moo ni yàlla daganal na ci néegi yi te mooy jàkka yi ñu fa yëkkati ab turam di ko tudd di ko fa sàbbaal ci bëccëg ak ci guddi ay nit ñoo xam ni rijaalun donte ay góor la waaye ñëpp dañ ciy dugg góor jigéen ay nit ñoo xam ni euh, euh, maanaam njaay du leen euh, tax fàtte tudd yàlla du leen tax fàtte fàttaliku yàlla du leen tamit tax a fàtte julli taxawal julli ak natt asaka loolu dangay gis ni ab cosaan la wala boog ab dalil la ab tegtal la boo xam ni day leeral ni euh, dajaloo ci aj ci jàkka tudd yàlla donte musuñoo gis fenn ci ab xadis foo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam def na ko wala boog fenn ci ab xadis foo xam ni fenn ci euh, ab nettali boo xam ne saxaaba def nañ ko waaye am na ab cosaan ci dina ji am na cosaan ci dina ji ndaxte tudd yàlla ci cosaan diina ji la bokk ba noppi alxuraan tamit am na ab tettal bu ci nekk buy leeral ni nit ñi dajaloo ci ab jàkka di tudd yàlla di ko sàbbaal loolu bokk na ci li mbir yi nga xam ne yàlla gërëm na ko kon buñ ne mbir moo xam ne dafa am cosaan ci diine ji loolu lañ ci jublu mooy loo xam ni tey jii borom subhanahu wa taala digle na ko wala yonent bi digle na ko wala boobu boo delee ci alxuraan wala sunna di nga ci gis loo xam ni ab tettal ab teetal ni nga xam ne noonu la déggee bidaa bu rafet noonu lañ koy noonu noonu lañ koy déggee maanaam bidaa bu rafet mooy loo xam ni ginnaaw yonent bi la ko nit ñi tàmbalee def waaye nag am na cosaan ci diine ji ginnaaw yonent bi la ko ñi tàmbalee def waaye am na cosaan ci ci diine ji dañ naan loolu lañuy wax bidaa bu rafet te loolu borom xam-xam yu bari ci kàngamu xam-xam yi ci imaam Shafii yi ak yeneen xam-xam yu bari ñoom euh, ñoom madhab boobu lañ jël ñoom opinion boobu la ñuy topp nii maanaam bidaa bu rafet mën naa am ñiy dàq bidaa bu rafet nag ñoom bidaa jëmmi bidaa ci boppam jëmmi baatu bidaa daa mel ni ñoom dañ koo gaafal jëmmi bidaa rek boo ko waxee rek jeex na maanaam mënoo mënoo ni bidaa teg ci rafet demee ni nga ni xaraam bu rafet ci ñoom ni ñuy déggee bidaa dañoo jàpp ni bidaa rek lu lu mënta rafet demee na nga ni xaraam bu rafet ñooñ nag ni ñuy déggee bidaa dafa wute ak ñi nga xam ne dañuy saxal bidaa bu rafet ni ñuy déggee bidaa loolu la bokk na ci euh, yeneen mbir yi nga xam ni dañ koy jàngee ci euh, xadiis bi mooy wattandiku lépp loo xam ni des koo sos walla lépp loo xam ni nit ñi des koy dañ koy woote woo ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo xam dañ koy woowee daa moo xam leen lu munti doon euh, nit ñi war nañoo maytu lépp loo xam ni ci ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam nit ñi dañ koy fent di ko jéem a def ab jaamu yàlla ñu koy ñu koy wattandiku bokk na tamit ci li nga xam ni des mën nañ koo jànge ci xadiis bi mooy ni du lépp loo xam ni rek dañ koo sos ginnaaw yonente bi rek ñu naan bidaa la dafay doon mbir moo xam ni dafay doon mbiru jaamu yàlla wala mbir moo xam ne dafa bokk ci dafa bokk ci diina ji bokk ci sharia bokk ci sharia day mel ni nga dégg nit nii di wax ci micro euh, bidaa la ndaxte yonent bi alayhi salaam def ko wala dawal oto bidaa la wala avion bidaa la wala yu mel noonu nga wax yu xorom yooyu moom daanaka ñu ñu desee xam lan mooy bidaa ñooy ñooy ñooy wax ñooy wax yu mel noonu te da ngay gis ñu bari ñoo xam ne dañuy wax loolu dañ naan ay di julli di yor micro ci ci biir julli euh, bidaa la ndaxte yonent bi alayhi defu ko wala boog comme ni ñuy tracé ni ñuy rëddee julli yi di ci teg moquette yeeg yooyu noonu ñu naan loolu bidaa la parce que loolu amul woon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala boog avion yeeg yooyu noonu ñu naan ay bidaa la que defu ko yooyu wala ay kurus ay yu mel noonu ñu naan bidaa la ndaxte yonent bi def ko wala yu mel noonu loolu daanaka ñu bari ñu koy wax ñàkk xam lan mooy charia ak la mooy bidaa moo tax ñu koy wax ndaxte yonent bi def ni man ahdata fii amrina ci suñu mbir mi fii amrina te mooy mbiru charia mooy mbir moo xam ne dafa jëm ci charia loo xam ne charia da ciy da da ci da ci am da ciy am atte loo xam ni mën nga koo delloo ci juróomi mbiru sharia ci juróomi attey sharia al ahkaamu tak al uh, ahkaamu taklifiya al xamsa al ahkaamu taklifiya al xamsa yooyu lépp loo xam ni dafa bokk ci sharia nga mën koo attee ci juróomi atte yooyu rek dañ naan loolu ci sharia la bokk waaye leneen loo xam ni des ko attee ci mbir yooyu loolu kenn du wax kenn du ci wax biddaa wala mbiru aada wala comme àdduna fi muy toll àdduna ni muy doxee di avancé ak euh, nit ñi li ñuy inventé wala yu mel noonu wala technologie wala yu mel noonu mbir yooyu kenn du ci wax bidaa wala ñàkk wala bidaa wala déedéet bidaa de doon ci mbir moo xam ni mbiru sharia la ak ci mbiru jaamu yàlla yi ak ci mbiru euh, jaamu yàlla yi kon loolu mooy xadiis boobu juróom benneelu xadiis bi um, an-Nu'man ibn Bashir moo ko nettali mu ne ani an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن يتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ووقع في الشبهات ووقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم xadis bi muttafaqun alayhi mooy Buxaari ak Muslim ñoom ñaar ñëpp nettali nañ ko jëlee ko ci an Nu'maan ibnu Bashir mu ni dëgg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni inna alxalaala bayinun wa xalaal mooy li nga xam ne daa dagan bayinun aji leer la lu leer nañ ñi la wa inna alxaraama te naka xaraam eh, bayinun aji leer la wa baynahuma ci seen diggante nag umurun am na ay mbir yoo xam ne mustabihatun ay ak yu lënt la ay mbir yu lënt la ay mbir yu lënt la yoo xam ne laa yaalamuhunna kathiru min annaas nit ñu bari duñ ko xam di ko ràññalee nit ñu bari duñ ko xam di ko ràññalee xadis bi lim ñuy jàngal mooy ni borom bi subhaanahu wa ay àtteem da koo leeral ba mu leer nañ ñi maanaam lépp loo xam ne ak na ko ni lii lu dagan la suñ boroom leeral na ko ba mu leer nañ ñi lépp loo xam ne suñ borom ak tey na ko ni lii dafa xaraam leeral na ko ba mu leer nañ ñi te lool ay cosaanam mi ngi ci alquran suñ borom subhanahu wa taala moo ni ah, wa qad lakum ma xarama aleykum suñ borom faram fàcce na leen lépp loo xam ne araamal na ko ci yéen suñu borom tamit nee na wa maa kaana allahu li yudilla qawman baada id hadaahum xatta yubayyina lahum maa yattaquun suñu borom du reeral ay nit ginnaaw bi mu leen gindee ba noppi loolu ni dina leen leeral lépp loo xam ne war nañ ko wattandiku maanaam dina leen leeral li dagan ci ñoom ak li araam ci ñoom dina leen leeral li li dagan ci ñoom ak ci ñoom salaam tamit am na ci beneen xadis boo xam ne daf ni euh, suñ boroom daganal na yenn mbir bu leen ko jéggi suñ boroom tamit euh, suñ boroom daganal na suñ boroom araamal na yenn mbir bu leen ko bu leen xotti orma gi inna allaha xarama ashyaa fala tantahikuha suñ boroom euh, araamal na yenn mbir bu leen xotti orma yi suñ boroom tamit teg na ay limite dayal na ay limite ku ne jéggi limite yooyu wa xaddada xuduudan fala taataduha mu teg ay limite yoo xam ne nag war kenn waru koo jéggi waaye tamit wa sakata an ashyaa raxmatan min xayri nisyaanin fala tasalu anha mu noppi ci ay mbir te noppi googu dara fàtte warul ko waaye yërmande moo ko waral yërmande moo ko waral waaye du fàtte kon nag bu leen ci laaj bu leen ci laaj dara moo def suñu borom ni ci alxuraan yaa ayyuhaa lladiina aamanuu laa tas'aluu an ashyaa in tubda lakum tasu'kum wa in tas'aluu anhaa hiina yunazzalu l-qur'aanu tubda lakum afaa llaahu anhaa wallaahu gafuurun haliim ñi nga xam ne yéen a a gëm bu leen laaj ci ay mbir yoo xam ni buñ leen ko feeñalee leerale leen ko mu lor leen wala boog mu metti leen waaye nag bu fekkee alxuraan a ngi ci ngeen di laaj ngir ñu faram-fàccee leen loolu borom subhaanahu wa taala jéggale na ko loolu mooy maanaam di laaj ay atte footol laaj ay atte lii ndax dagan na lii ndax lii ndax araam na lii la moo ci lii la moo ci atte lii la moo ci atte lii la moo ci atte am na yoo xam ne borom bi subhaanahu noppi gim ci noppi ngir yërmande moo tax moo tax yonent bi alayhi salaatu laaj laajoon nañ ko ci mbiru xaj ko bi mu waxee ci mbiru xaj ba noppi euh, saxaaba dañ koo laaj ndax dañ koy def at mu nekk yonent sa noppi ba yàgg mu ni leen su ma leen waxoon waaw day war ci yéen te bu waree ci yéen dina jafe ci yéen at mu nekk ngeen di ñëw di di di aj si moo tax aj benn yoon dong la war ci at mi warul at mu nekk ci nit ñi moo tax loolu yonent bi salaam wax gi mu ko wax yërmande ci umma bi moo tax mu waxe mu wax leen loolu ndaxte bu bu buñ ko laajoon ni ko ndax dañ koy def at mu nekk rek bu leen noonu waaw rek mu war te ak ni mu jafee ba noppi mu kalaf bu nekk at mu nekk nga war a dem aji loolu dina metti ci dina day metti ci ñëpp moo tax am na mbir yoo xam ni borom bi lim ci leeral nit ñi ci lañ war a yem moo xam li leeral ni lii lu xaraam la ak lii lu dagan la nit ñi ci lañ war a yem waaye wa baynahuma umuru mushtabihaat diggante xalaal ak xaraam dafa am ay mbir yoo xam ne dañoo lënt dafa am mbir yoo xam ni dañoo dañoo lënt mbir yu lënt yooyu mooy imma ay mbir la yoo xam ni boroom subxanahu wa ta'ala leeralul lan mooy atteem borom subxanahu wa ta'ala leeralul lan mooy. la mooy àtteem ni ki buñ gisoon benn euh, ab mala boo xam ni daanaka xamuñu ndax lii lu dagal la wala lu araam la loolu da doon loo xam ni xamuñu ab àtteem foo ñu gëstu ab àtteem jéem a xam la mooy àtteem walla ab masal bu bees rot boo xam ni xamuñu lii la mooy àtteem nga xam ni borom xam-xam ci umma bi ñi nga xam ni jot nañ daraja istihaad ñoom ñoo war a dem gëstuwaat euh, alxuraan ak sunna ngir leeral àtteem mbir boobu mën naa nekk loolu ñuy lii mbir mu lënt la walla mu wala bokk mu doon mbir moo xam ni am na ay ay ahadis yu ci ñëw wala bokk alxuraan wax na ci waaye àddila yi dañuy xaw a wute maanaam fii day mel ni dañ ko daganal fii fii ñëw ñu ko fi xaraamal wala boog fii ñëw ñu ko ñu ñu suñ euh, yonte ba salaam jox ci ndigal fee mu sibloo ko nit ñi loolu tamit mën na doon lu ñu naan mustabihaat mustabihaat loo xam ni loo xam ni dafa dafa lënt te yu bari ci mustabihaat yi noonu la mel yu bari ci mustabihaat yi noonu la mel loolu tax borom xam-xam yi di ci wute ci yenn mbir yi borom xam-xam yi dañuy wute ci yenn masala yi loolu moo koy waral borom xam-xam bi day gëstu gis ci alxuraan lu ko leer wala mu gis ci xadis ci sunna si yonent bi alayhi salaam lu ko leer ne lii lu dagan la keneen ñëw tamit am beneen gis-gis xool ci alxuraan wala mu xool ci na gis lu ko leer ne lii luñ sib la keneen ñëw xool gis lu ko leer ne lii lu xaraam la loolu nag masala yi mel noonu bëri lool ci ci ci sharia yooyu lañu woowe mushtabihaat moo tax yonent bi alayhi salaam ni laa yaalamuhunna kathiru min annaas ñu koy xam ci nit ñi du bëri ñoom ñoo koy xam ñi nga xam ni borom subhaanahu wa taala rasixuuna fil ilm ñi nga xam ni borom subhaanahu wa taala may xam ci alquran ak sunna ak tamit fiq ñu mën a ràññee les atte yàlla yi nga xam ni atte yàlla yi ba xam la moo dagan ak lan moo xaraam moo tax subahaat yooyu ñu bari ci nit ñi duñ ko xam waaye yonent bi da ca joxe ab takk-takk boo xam ni mooy tax nit ñi mën a mucc ci subahaat yooyu mu ne fa may tax a subahaat képp koo xam ni wattu nga subahaat yi qad istabraa li diinihi kon kooku muccal na diineem wa irdihi ak ab deram mu ne képp koo xam ni dangaa wattu subahaat yi subahaat lépp loo xam ne atteem leeru la wala bokk joxe nañ ci ab àtte waaye borom xam-xam dañ cee wute ñii dañ ne araam na ñii naan dagan na ñii naan si dañ koo si ñii naan dagan ak yu noonu yow nga far jël yooyu yépp wattu ko def ko comme si daa xaraam ci yow lépp luñ ni lii dañ koo sib wala ñu ne lii am nañ ci wute wala bokk àtteem leeru la nga far bàyyi ko mu ne képp koo xam ne def na loolu de istabro ale diini yi kooku ñoŋal na ñoŋal na diineem muccal na diineem maanaam kenn du ko xool ba ni ko ba ni ko yow xotti nga àtteb euh, sharia maanaam nit ki mën naa def dara loo xam ne benn borom xam dana ko li dagan na keneen ñëw ni ko ah li ne daa xaraam li ne daa xaraam def nga lu xaraam bu fekkee nit ki moom daa moytu lépp luñ ni ko dagan na wala xaraam na rek mu moytu ko kenn du ko romb ba ni ko yow def nga lu xaraam mbaa keneen di ko mbaa ñu ko ci yedd loolu mooy istabraa li diini yi ñoŋal na diineem wa irdihi ak deram ndogal la tamit deram kenn du ko romb ba ni ko yow mus naa la gis nga def nangam lu xaraam wala nangam lu xaraam donte moom sax gëm na ni loolu lim def dagan na waaye nit ki bu boolee xeetu subahaat yëpp moytu ko bàyyi ko kenn du ko gis ba mën koo tuumaal ci diineem ba mën koo tuumaal ci ci deram loolu mooy faq fa man ittaqa fa man ittaqa subahaati faqad istabraa li diinihi wa irdihi képp koo xam ne boole nga subahaat yépp bàyyi leen kon yow jongal nga sa diine muccal nga sa diine muccal nga sa der wa man waqaa fi subahaati waqaa fi lxaraam képp koo xam ne tàbbi na ci subahaati nag maanaam nga boole subahaat yépp yow lépp lu ñu la yow li dagan na dañ ci wute dagan na ñi ni araam na yow nga far boole rek rek yow laal bu ñu la waxul xaraam na rek moom daanaka yow doo ci doo ci doo ci bàyyi benn xel mu ni fa ma waqa wa man waqaa fi shubahaat képp koo xam ne tàbbi na ci shubahaat yi waqaa fi xaraam ci xaraam dina tàbbi ci xaraam ndaxte shubahaat yi li ñu bari bari bëri bëri bëri am na ci yoo xam ne nit ki bu ko saxalee rek day mujj doon lu xaraam day doon lu sax lu xaraam ci moom wala nit bu ko bërilee rek day day mujj doon loo xam ni day day xaraam moo tax subahaat yi mbir wi lant yi nit ki bu ko boolee di defandoo yëpp nga xam ni nit ki buñ nekk buñ ni ko woon lii dafa xaraam rek du ko bàyyi waaw buñ ne ko saa bu ci amee buntu rek lii dagan na wala lii dañ koo sëb doomu wala lii rek moom muy boole yëpp di def xel sax na dina dal dina dina dina dina ci loo xam ne lu xaraam la ni ki karaa yaran xawla alxima yusibu an yartaa fii képp koo xam ni day Euh, day sàmm ci aw ñàkk noonu ñàkk ñàkk képp koo xam ne day sàmm ci aw ñàkk te mën naa am ruur mën naa am ruur ki nit ki moom bu yoree ay bu yoree ab jur di sàmm jege toolu jàmbur jege toolu jàmbur jege ko lool lool lool lool euh, jur gi mën naa ruur dugg ci toolu jàmbur jur gi mën naa ruur dugg ci toolu jàmbur niki noonu rek képp koo xam ni dafa boole subaxaay yëpp di ko def xel seen ni dina tàbbi ci lu xaraam alaa wa inna li kulli malikin ximaa suñ borom yonent bi alayhi bépp buur am na aw ñàkk maanaam bépp buur day jël nguuram warale ko maanaam ñàkk mooy territoire daal wala bokk Euh, limite li ki tey senegal Sénégal am na ay limite senegal am na ay limite am Amérique am na ay limite am fépp am na ay limite euh, bépp buur ci nguuram da ci am ay limite day am foo xam ni foofu foofu lay foofu lay foofu lay diriger am yeneen territoire yoo xam ni nguuram dafa àgg ala wa inna ximallahi maxaarimuhu suñ boroom nag moom tamit muy góoru góor yi moom tamit am na aw ñag ñagam nag mooy maxaarimu li nga xam ne da koo xaraamal borom bi lim xaraamal loolu mooy ay ñagam maanaam mooy limite yi nga xam ni kenn waru koo jéggi mooy limitam yi nga xam ni kenn waru koo jéggi ala wa inna fi jasadi mudga yonent bi alayhi salaam ni ci biir yaramu nit ki day am na wa ida fasadat bu yàquwa nag fasadal jasadu kulluhu yaram yëpp day yàqu loolu mooy lan ala wa hiya al loolu mooy xol loolu mooy xolu xolu nit ki loolu mooy xolu nit ki al euh, mu fi de lay jóge ci baatu taqallaba al qalb mooy loo xam ne day walbatiku day walbatiku walbatikuwaat am na benn waykat bu ni wama summiya insaanu illa li nasihi wala al qalbu illa annahu yataqallabu muy nit tuddewuñu ko nit insaan lu dul ni ngir fàtteem fàtte gi muy fàtte xol nag tuddewuñu ko xol qalb tuddewuñu ko qalb lu dul ni yataqallabu day wëlbatiku loolu yonent bi alayhi salaam wax na ko yonent bi alayhi salaam nee na xolu jaam bi mi ngi ci diggante ñaari baaraamu borom bi subhaanahu wa taala du koy wëlbati nu mu ko neexee du koy walbati nu mu ko neexee xool li ci nekk ci ay yëg-yëg ak yëg-yëg yooyu ni muy ni muy wëlbatikoo tey ci bis bi rek sa xol mën na cee wëlbatiku lu bari yoon mën nga mer tey mën nga mer léegi ginnaaw bi nga ree ginnaaw bi nga kontaan ginnaaw bi nga mere kii ginnaaw bi nga jékki xol moom day wëlbatiku rek xol noonu lay def day wëlbatiku moo tax ñu naan xal yonent bi alayhi salaam nee na jëmmi xol boobu mooy mooy diriger yaramu nit ki maanaam xol bi bu baaxee bu yewenee nit ki bu setalee xolam ba xolam yewen ba xolam set yaramam bépp la ciy topp ndaxte xolam mooy diriger yeneen cër yi xolam mooy diriger ay bëtam mooy diriger bakkanam mooy diriger gémmiñ làmmiñam noppam ak yeneen cër yi ak loxoom tànkam yépp xolam moo koy xolam moo koy dirigé xolam bu baaxee yéwén yeneen cër yépp dañuy baax yéwén xolam nag bu yàqoo yeneen cër yépp yeneen cër yépp dañuy dañuy yàqu moo tax nit ki li gën a am solo ci moom mooy mu defar xolam nit ñépp li gën a am solo ci ñoom mooy ñu defar seen xol ba nga xam ni la ñuy def ci seeni cër la ñuy def lañuy def ci seeni cër mu mën a doon loo xam ni ci seen xol lay jóge te doon lu yéeg te loolu duñ ko mën a amee ci lu dul nit ki yéwénal xolam bu yéwénalee xolam rek la muy def ci ay cëram yépp day yéwén tamit day feeñ ci nit ñi waaye bu xolam yàqu rek la muy def ci cëram yépp dara du ca baax te it day feeñ ci day feeñ ci nit ñi. xadis bi buxaari yi moo ko nettali ak muslim kon xam naa ñu jëm fu ñu beneen yoon insha allah wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin